ñoom itam ñu weddi ko ne déjà ñaari permis yoo xam ne ñoo fi am euh, ci wàllum euh, exploration yu ni mel euh, te permis yooyu lee du sax maanaam ñu nga xam ne dañoo gis ba noppi mais dañu leen a joxoon pour ñu nekk di seet wala di rechercher keneen itam koo xam ne weddi na mu di Aly Ngouille ndax defoon na communiqué ba noppi Mimran moom itam nee na déjà mosul am lettre boo xam ne bindante na ko ak Aly njaay ba ci sax réunion bi nga xam ne wax nañ ko ci seen diggante ak le président de la République Macky Sall ca Paris donc ba léegi c'est une suite et ndax fi mu nekk nii moom nit ñëpp ñi ngi toog di xaar ba xam lan mooy euh, lëgu maître Moussa Diop mi nga xam ne moo jiite parti bi la di euh, euh, gor ñi jot na. di fàttali les candidats pour la présidentielle ànd gor ñi jot na voilà mm-hmm. donc moom candidat la pour la présidentielle de 2024 xaddi si la. d'accord alors Pa Moussa ñaari feuilleton judiciaire suba la ibbi li nga xam ne mooy audience Ousmane Sonko Issa mi ngi koy fàttali c'est pour sa radiation ak révélation yi mu def ni jamono ji auto procureur auto saisir ñu lan la mën a jàngate les deux feuilletons judiciaires jamono ji alors le premier bi nga xamante ne moom moo impliqué Ousmane Sonko c'est euh, un long marathon kii euh, je pense bu ñuy xool point de départ bi c'est en mars 2021 ba tey jii nii alors donc euh, par rapport à sa radiation gis nañ ne dem nañoon à Ziguinchor foofu nga xamante ne foofu la inscrire foofu la ko yoon mayoon mu def recours def na recours ba ñu jox ko dëgg ñu Euh, agent judiciaire de l'État bi nga xamante ne man ba léegi je me pose des questions lan la wut ci procédure bi parce que agent judiciaire de l'État mi ngi ci biir ministère de l'économie et des finances donc buy engagé wu ci procédure ci wàllum euh, xaalis su nguur gi ñu euh, toppee kenn voilà parce que état moo koy topp ko c'est la première fois Karim Wade wala justement ak Khalifa mais man li ma jaaxal c'est la première fois ma gis ko mu impliqué wu ci question wu liste électorale sur politique pour ainsi dire mais bi demee Cour suprême nekkul ne li euh, tribunalu Ziguinchor bi wax du dëgg parce que loolu tamit foog ñu souligner ko euh, cour suprême waxul ne Sabassi Faye il n'a pas appliqué le droit dafa ne rek moom fi mu motiver am dafa sori motivation dafa sori maanaam mënoon nga yem fii rek. mais dafa kase verdict bi. renvoyer ko devant une autre juridiction une autre juridiction boo xam ne Ousmane Sonko inscrire wu fa alors en matière électorale aussi c'est une première avec Ousmane Sonko tout est première euh, bu nekkee ci tribunal boo xamante ne moom inscrire wul foofu noonu Euh, liste électorale boo xamante ne Ousmane Sonko bokk ci parce que Ousmane Sonko n'est pas dans la liste électorale de Dakar alors donc euh, ñu war a mën a dellu si waat ne euh, nanu appliquer le droit bu dee rek li conseil cour suprême wax wala li Sabassi fay wax ñaar yëpp boo ko boolee argument yëpp amul benn boo xamante ne mi ngi fi militer en faveur de confirmer la radiation de Ousmane Sonko ñoom ñaar ñëpp. alors donc kon li ñu mën a xaar ci euh, suba <clears throat> mooy que le droit soit appliqué ñu annuler euh, cette radiation là donte nag dina jafe trop au vu de la volonté affichée l'orientation euh, bi li bi nga xamante ne la politique ben du du de de l'État parce que ki nga xamante ne moom mooy le procureur dans toutes les procédures engageant Ousmane Sonko moom moo dugg foo xamante ne mën na xañ Ousmane Sonko éligibilité je m'explique affaire Mame Mbaye Niang en première instance c'était deux mois mmh. qui n'empêchait pas Ousmane Sonko de participer c'est le procureur moom moo def appel appel bi corse la pen à six donc qui compromet son élection dans l'affaire Sweet Beauté aussi ki nga xamante ne moo porte woon plainte viol ak menace de mort la waxoon ñaar yooyu yëpp retenir benn ki nga xamante ne mooy exécuter la politique pénale du muy le procureur moom moo évoqué la corruption de la jeunesse donc kon boo xoolee ñaar yi concerné Ousmane Sonko yi waral éligibilité am remettre en cause yëpp. Mhm. acte procureur la. d'accord pas ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko porté plainte donc moom moo tax man ma gëm ne toutes les procédures qui engagent Ousmane Sonko pour mu bañ a bokk la et loolu dafa firndewul tey jii ni li koy firnde tey moom mooy gis nga ni lépp lu nuy euh, dajale di ko mobiliser en termes de ressources de ressources humaines et mhm. confirmer cette radiation là. donc kon euh, radiation euh, droit de vote la ñuy xañ Ousmane Sonko. kon Sonko il a toujours toutes ses chances même su fekkee. absolument euh, c'est euh, minime. rien n'est encore. Euh, mais aussi introduire un recours bu fekkee ne décision bi génn na maanaam buñ buñ paree suba mën na dugal recours. gis nga loolu aussi est-ce du. parce que le 26 kon l'affaire mën na su ñu joxee raison Ousmane Sonko cour agent judiciaire tamit mën na defaat recours. léegi léegi finalement. ñu war a dëkkanteeg le 26 yoon may na ko. moom bi muy kase décision Sabassy Faye moom mu jugé les faits immédiatement yoon may na ko pourquoi delloo waatoon fële pour guddal jël bi guddal jël alors ñu dem ci lii nga xamante ne sa euh, dafa tenir sénégalais en leen ci week-end bi mooy révélation yi nga xam ne l'ancien directeur général de Dakar Dem Dikk nga xam ne hmm. dafa bokkoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar amoon fa ndombal tànk bu am solo c'est pas une personne boo xamante ne dañu naan euh, benn activiste la muy euh, maître Moussa Diop génn accusation yu grave teg ko ci ndodd président de la république mais aussi l'ancien ministre qui a eu de très ci réew mi wax nga ko léegi ancien directeur de Dakar Dem Dikk mais qui est aussi un avocat de surcroît un juriste boo xamante ne euh, personnellement après sa conférence de presse déggante naa ak moom je sais. ah déggante ngeen euh, après sa conférence de presse xam naa ne du nit koo xamante ne day wax naa la nayam man personnellement Euh, mosoon naa dem ci benn conférence de presse bu Benno Bokk Yaakaar ma xool seen siège bi ni mu mel quoi affaire bi yéem ma trop mu mel ni siège 5 étoiles ma jël ay photo affaire yooyu def benn post Facebook interpellé ko moom directement euh, mu commenté la publication pare ñëwaat fii nii dajeeg man àndaale document yëpp. ne yow yaa waxoon ne terrain bi xaw ma naka laa ko jaayee wan ma traçabilité bi yëpp te pourtant bul fàtte ne porté woon na ci plainte Barthélémy Dias. waaw moment boobu aussi Barthélémy bu ñu demoon ñoom ñaar procès day dugg. parce que il avait tous les documents. de là j'ai compris que c'est quelqu'un de très méticuleux. et qui ne dit pas n'importe quoi et qui ne dit pas n'importe comment. c'est un homme de droit. avec des documents justement donc kon euh, actuellement là jusqu'à preuve du contraire dama jàpp les accusations qu'il a portées am na les preuves assez euh, preuves yu suffisantes pour mën a euh, prouver li nga xamante ne moom lay wax léegi. mais Pape Moussa lui aussi réew la ñuy nekk. donc loolu est-ce que c'est pas suicidaire pour un candidat de la présidentielle. je ne le pense pas des des des des, euh, euh des candidats. Euh, yu dul euh, président Macky Sall opposition bi daal loolu rek lañ doon jiñ président Wade alors donc kon tey jii nii moom li mu li ñu ko joxagum comme réponse j'ai vu la coalition de Ali Ali Ngouille Ndiaye def communiqué moom il n'a pas accusé la coalition amuñ pour tontu j'ai vu aussi le la direction des mines. faire une communication de démenti moom accusé wu leen moom li mu wax dafa ne ci biir euh, ay euh, mine de diamant président Macky Sall intitut personnel moom moo am <coughs> contrat ak ñeneen je sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire par là que ni président Macky moom du du état Sénégal moom moo le président himself voilà il a seen expression boobu la utiliser moom moom moo am contrat bi ci loo xamante ne ressource Sénégal moom mu ci am contrat loolu c'est d'une gravité extrême loolu foogu ne loolu war nañ koo mën a bàyyi mais il ñu vérifier aussi la donc il faut non seulement une enquête sérieuse élucidé parce que c'est de euh, des ressources du contribuable sénégalais parce que depuis la réforme de en dañu ne les ressources appartiennent au peuple bu njëkk ba dañ doon wax appartiennent à l'État mhm. maintenant appartiennent au peuple glissement sémantique boobu am na l'ancien premier ministre Aminata Touré sax ñu ibbi benn euh, commission ah, parlementaire d'enquête parlementaire Guy Marius Sagna introduire dafa war a leer

pour faire tollé pour nekkam nangam def loo xamante ne euh, bu bu dul dëgg. Hmm. dootoo mën a ci tollé de. ah oui donc je ne pense pas que ni dafa wax nii rek dans l'air comme ça léegi nag yoon woo na ko. te moom loolu la doon xaar. boo gisee dans sa communication mu ngi naan nañ ma woo. Hmm. le juge d'instruction na ma woo. donc wuyu na leen fi ñu ko doon kiiwee. léegi nag na teg ay docu ay ay ay preuve am ñeneen ñi nga xamante ne jàpp nañ ne li mu wax du dëgg. Hmm. ñoom tamit ñu génne